di wax ni loolu mom dafa metti bakkan forna bakkan forna di xey di dem da ngay musulu xey si jamu wacc si jàmm bepp doomu adama bu joge si lalam rek muy chrétien ba muy julit bi yep bu rek day ñaan yalla na waccat dem si sama kër fekk si jàmm kon ku ne loolu lay ñaan kon nak ñun amuñu ben bi nga xamni xale si bir gox fi bi gendar amuñu droit bobu amuñu sañ-sañ bobu yalla ko tuddu fa lay yem ñun suñu njaboot ñu koy bàyyi suñu kër kaw muñu buñu wacce dañuy fekke ñu dé wala juñu dé kon nak nga xamni li dafa metti mais rañinu xalé ba auto bi amna ay pèse chauffeur bi amna ay pèse pees ñew nañu constaté ko police ñewna na def na ligéyam comme ñom buñu jël tal auto bi wala yak auto wala di door chauffeur bi loolu du yoon metti Nyom nyongi ngi dëkk suñu biir ndax gendar léegi presque tass na ñoom ñëpp ñoo ngi biir Pikine te chaque jour lañuy yep dem ber gendar nyom eh? meti bi duñ ko metti xam nga ñoo lay sonu ñi nga xamne Pikine la dëkk di di war a xëy hydroba chaque jour di war xey xëy hydroba ñoo sonu mais bu do ñom kese ci mbir gendar gi du len sonal ndax dañuy wax ni ñu Pikine dara ndax fa la fañaa bu ñu dañuy dox dem sunu gal kon nan nañu rafetal ñu xam fayanto bi amul ben sens ñoo ngi ñaan autorité yi nga xam nak ñoo nekk ci kaw di xol affaire yi nañ tek affaire bi ci yoon tali bi ñu ñëpp ñoo ko bokk bakkan bu fi yewoo ñaan na delu wa sa kër ci jamm ak salam te dula dara dula arrivé kon nak yàlla mo am mo am dundu mo adama waaw chauffeur yi mom, demay dama leen koy denk denk sama bop ba paré di leen ko denk nañu respecter sen tej porte nañu respecter client yi ci biir auto yi buñu yégué receveur bi ci gannaaw porte bi ci gannaaw fekke tejuul yow receveur nga am responsable na client bu fa taxaw bu oto bu feesee ne ko dafa fees mu wàcc bañ la ngaamu si bitti receveur bi na si jàppale chauffeur bi mu xam ne chauffeur bi ñaari bët la am si kanam bu buy suivre si kanam di suivre si gannaaw tamit dafa metti nga fuggaat oto bi demal baax na eh? mais du leen bàyyi ba oto bi départ bàyyi mu wàcc oto bi départ ba pare moomul tali bi oto bi du kese mooy daw kaw tali bi ñu di mbokk ak sunuy nawle ñoo ngi moytu xale moytu vélo moytu sareet moytu moytu lu ne comme chauffeur bi xel la amee ak dawal kon lenn bu ko arrivé rek du si du dawal si dawalam du mun a du mun a set. kon loolu lépp buñ ko préparé rek nañu si bàyyi xel bu baax di ñaanal jàmm nag ndax loolu rek moo jara si kaw Sénégal adduna gi yëpp nag jàmm rek lañu ñaan. ndogal bu amee kenn mënu si dara ndax chauffeur bi xëy bu xëyee ñaan na yàlla xëy si jàmm. wàcc si jàmm ndax xam nga ne yow ngay dawal nekk ci kaw tali bi bàyyi say njaboot bàyyi say sa ay sa ay waajur boo sañoon da ngay xëy si jàmm wàcc si wàcc si jàmm chauffeur moom heure bu xëyee rek su sañoon belantaan sax du ko laal asamaak doomu aadana tey dafa metti ligne 3 bi ku nekk xam na dafa metti ñun nii ay receveur noonu la ñu sonnee client yi amul lu dul dégg client yi saaga waa Gendar nu leen neex la ñuy la ñuy nekkee si oto te loolu du yoon biis ñun dañu fi indi ñu ne ñoom ñoo far ñoom ñoo ñu tax di yeewu ñun tamit ñoom ñoo leen tax ñu ñuy yëg ci oto yi nanu muñalante amul solo te xam ne day jeex ñu bàyyi ko fi àdduna amul solo daal te xam ne kii euh, xale bi génn àdduna tamit ñu ngi koy jaale xam ne metti na torop nag mais yan na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana di jaale yaayam ak papaam di ñaan yàlla xaaral ko àjjana. chauffeur yi moom maa ngi leen di ñaan kan yi ñuy ñu jàppale chauffeur yi di xool bu baax di garder porte bi porte arrière bi ndax chauffeur bi mënul nekk di dawal di garder ci kanam di garder ci gannaaw ñoom ñoo si war a jàpp du xool jël seen xel mi def ko seen liggéey bi jàppale chauffeur yi daal di wax client yi di leen di leen ñaax ñuy avancer si biir ñoom ñoo mën a gën a mën a jàppale chauffeur yi. client bi dina si jàppale moom tamit comprendre la xam ne ci chauffeur ñaari bët rek la am ci kanam. mënul mënul geesu di wax ci kanam loolu daal laay sàkku ñu dimbali ñu si te nguur gi tamit bu jël dimbal boo xam ne si ni si sëfër tataay yi nañu dimbali bu dara amatee ñu taxaw kasaate ka yoon def yoon def li mu war a def waaye nit du taxaw kasaate waaye otoom am pees sëfër bi am peesam ñu taal otoom loolu perte perte mënul ñàkk si loolu waaw man daal lenn rek laa bëgg yoon def ko te mu dimbali ñu si mooy oto bu laalatee sax xar na taxaw ñu kasaate ka dañ ko tëñee ko six jours sëñ ne ko six jours keroog lañ ko six ñu bàyyi ko waaye dafa nekkul loo xam ne si dafa yoon kaso dafa nekk loo xam ne dafa metti bala nga see dugal nit dafa war a def loo xam ne kon assurance lan la fiy jariñ oto kon jëru ma am assurance oto am na am na ay peesam ba mët sëkk ah daggal nañ ko ay peesam bu laalee dara pasaate nañ dem yoon ah, waaye jàpp nit ki mu dem jëli peesam nga ne ko demal jàllale ko ay mbokkum yëguñ ay daram yëgul bañ dee ba àgg lañ ko soog a yëg waaw kon nag yàlla na yàlla def jàmm di laa sama moromu sëfoor yi ni leen di góorgóorlu ah xam ne si ni yaakaar naa ni ndogal moom fépp lay jóge di leen sant tamit yéen ñi nga xam ne si ni dagg ngeen seen jotaay ñëw fii yaakaar naa ni bëgg ñoo yóbbul ah yàlla yàlla def jàmm. Eh, tey eh, waa Guet Ndar yi ñu ngi leen di laaj message pour ñu gën a ànd ak seen xel bàyyi xeex bi ak toppante bi te xam ne jëru ko àdduna la lépp day jeex eh, xale bi gaañ yi maanaam ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko te jéggal ko di ko mbokkam tawféex safoor yi yalla neen yàlla dolli xolub muñ defal leen jamm ak sutura di ñaan yalla euh, li yalla na fi gej yalla na fi ay xewal top waye lu melni yalla na fi gej yalla ni yalla mu sa euh, jere ngeen jëf waaw mel nag jaam jaam ak limu mu sàkku ak sun borom limu dogal waaw bu nit bu nit ki accidenté yoon dafa am ci rew mi nit ki bu accidenté loi ngi fi dañuy dañuy doxal loi mais kenn jax sa bop bu fekkene adno bo fa nek da ngay fa jax sa bop kon kon dara du bax waaw dañoo xam ne projet bi bi fi état bàcce pour est intérêt dëkk bi la intérêt réew la ñu sàmm ak suñu bopp bañ ko yàq mais ñoom ni ñu doxalee bu bu ku nekk bu koy doxalee nii rek bu baax mais ñun sëfër si ak sëfër si problème la ñu am fii ñoom fii ci fii ci dëkk bi. ñaawloo ko ak naqarloo ko ñaawloo ko ak naqarloo ko parce que bu fekkee bu mbuus amee amee nga taal mais li gaal yi rey oto rey ñu gën gaalu gendar yi li ñu rey oto yi rey ñu gën a par 60 par 80 la ñuy rey loolu umpul umpul kenn Sénégal ah, fi ñëwee ba léegi cas mortel lu lu néew parce que fii ay chauffeurs sérieux fi nekk yu am formation. yu mën a dawal ay xale yu mën dawal yu bëgg seen bopp fonk seen ku ci xëy day day sangu ba set sol lu rafet respecté liggéeyam. 93 ba léegi léegi lañuy def ñun ci dëkk bi leen dëkk yëpp la ñu fekk 93 ba léegi ñoom ñu taal njaga njaay bu kii ñu taal bis bu kii ñu taal ah mais pourtant ñoom ku taal seen gaal du leen neex ah kon boog dëkk bi kon dañ ñoo bokk dëkk bi dañ ko war a rafetal nekk bi dañ koo war a rafetal ah. moytu violence violence baaxul day day indi guerre civile te li indi guerre civile baaxul kenn du fajal sa bopp réew mi am na autorité ku am loolu naqari da ngay da ngay def dox ko wax ko. bu kenn bu ko lenn dalee dal na ki ci des bi loolu amee euh, ay jóg jël oto bi taal ko ci kaw pont xaw nañoo gaañ chauffeur bi daanaka am na yeneen yëf yu fi topp sax yoo xamante ne xëy na doo ko mën a lim waaye lii ci gën a metti mooy taal nañu oto bi xaw nañu faat chauffeur ba daa mujj daw moom receveur bi te ma jàpp ni réew mii ñu nekk di Sénégal réewu droit bu nit defee loo xamante ne waru fi yoon mën na koo fajal na nu koy faje ndax bu fekkee ne ku loolu dal ñu def la nii daanaka dootul mas ñu taal oto yi di dem di amatul njëriñ sécurité amatul au niveau de Guet Ndar te loolu suñ ko bàyyee daanaka mën na wër réew mi ah. wax rek si mbir mi xew mbiru grève bi mu def wala may tàmbale nag maa ngi jaale famille bi ñàkk seen doom. Ah, mbir mi bi muy am xam naa ni circonstance la accident de route la. bi bi yor mbiru kaar ak setit

ñun dañuy dellu si si démb ñun tey jii bi projet bi ñëwee si région yëpp ñun suñu maire dafa ñu dañu jàppale parce que projet yi fépp fu mu dem si si si si Sénégal transporteurs yi ñoo dem wuti seen ay arrêt ñoo dem defari seen ay arrêt créer seen yëf yëpp ñoo dem defi ko ñun suñu maire dafa ñu lépp lu jëm si urbain wu Ndar lepp lu ci wara investir do len ci def terum ma len kay defal kon ko ko mel non su lay jappale su lay ñaané vraiment bo dee julit wala bo dee ngof wala boo nawloon tek sa morom da ka mën may ci loolu mu lay ñaan te lim lay ñaan du lu metti da leen di ñaan ngeen baña taxaw lepp li ngeen soxla ñu to waxtaan ci xam nga kooku loolu wax bu leer la looloon tax ñun tay ji grève nu mais duñu taxaw une journée pour xaar maire pour mën waxtaan loolu moo tax tey jii population bi euh, souffrir noonu si tuuti gis nañu ko nag parce que on était sur le terrain nekk na lu nu metti lu metti lool lool lool lool parce que suñu ay doom suñu ay jabar suñu ay nijaay papa ñëpp tey jii sonn nañu te ñu bokk ndar nag bu yëpp weesoo ndar ñun ñëpp ay ndar-ndar ah suñu doom yi war nañu suñu soxna yi war nañu dem marché suñu papa yeeg ñëpp war nañu doxi seen soxla te oto yi yaa leen yóbbu ñoo ko yor di ko c'est un c'est un c'est circuit bu ñu yor rek di ko doxal ah mais ñoo oto yi ñoom ñoo leen moom parce que su oto yi taxawee ñoom ñooy taxaw loolu la ñu amoon tuuti si luñ ciy wax.